نزف إليكم كلمات طيبة وتهيات حارة من إخواننا من دولة الكويت وهم يتمنون لكم كل خير وتوفيق وسداد وها نحن اليوم في مدينة هدى الله آه، إخواننا في الكويت لقد حضر في هذا الاجتماع شخصيات حكومية وإسلامية وتقليدية وها نحن أمام الشيخ عبد السمن بكي السفير المتجول الذي يساعدنا ويساندنا ويشاركنا في كل الأمور التي نقوم بها في مختلف ربوء بلاد السنغال وها نحن أمام المحافظ سيدي جرى درامي الذي ما فتئ وما برئ يساعدنا ويدعمنا في نشاطاتنا التعليمية والدعوية الإسلامية وها نحن أمام رئيس البلدية آه، دمو دبا الذي هو رئيس بلدية هذه المدينة وها نحن أمام شخصيات إسلامية الذين حضروا في هذا اليوم العظيم لتوزيع المساعدات الإغاثية التي جاءت من دولة الكويت عن طريق آه، صديقنا وحبيبنا الشيخ جاسم محمد الإيناتي رئيس لجنة القارة الإفريقية في جمعية إهياء التراث الإسلامي بدولة الكويت حفظهم الله جميعا وثبت خطاهم في الأمل الإسلامي ولا نطيل في الكلام لأن الوقت ضيق جدا ونحتاج إلى توزيع الأشياء التي جئنا بها لمساعدة ومساندة المتضررين في الفيضانات التي حدثت يوم 26 آه، شهر 6 وكما رأيتم في التقرير الذي كتبناه وأرسلنا الصور التي رأيتموها ها نحن اليوم في هذه المدينة بوفد كبير وكذلك يشاركنا في هذا الوفد آه، وفد حركة الفلاح الذي يمثله الأخ محمد الأمين به ورئيس فرع دار جلوف ورئيس فرع لينغير وأعضاء فرع تشنخ وما جاورها وكل هؤلاء حضروا آه، لمساعدة ومساندة آه، تقديم المساعدات والمعونات التي جاءت من الكويت فجزاكم الله خيرا وثبت الله خطاكم في الأمل الإسلامي منطقة فيرلو في مقاطعة آه، رانيرو فيرلو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 آه، مساعدة إغاثية من طرف الإخوة المسلمين في دولة الكويت وقدموا إلينا هذه المساعدة الكبيرة الذي استطاع أن يغطي 220 أسرة في هذه المدينة المنكوبة المتضررة في آه، جراء الفيضانات في سنة الماضية وجزا الله خيرا عن الإخوة المسلمين في لجنة القارة الإفريقية وعلى رأسهم شيخ جاسم محمد العيناتي وكذلك على رأسهم الشيخ طارق الإيسى رئيس جمعية الإحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت وإلى جميع المتعاونين معهم فجزاهم الله خيرا والإخوة في هذه المدينة وكذلك مسؤولي الحكومة السنغالية وعلى رأسهم الذين ترونهم أمامي آه، والأخ السفير المتجول عبد السلام باكي الذي آه، فوضه او ارسله رئيس الجمهورية لحضور هذا اليوم الكبير لتوزيع هذه المساعدات وكذلك المحافظ آه، للمقاطعة شيدي جرى درامي الذي ترونه أمامي ممثل والي الإقليم وكذلك وزير الداخلية وهم يهملونني تهياتهم الحارة ودعواتهم الخالصة إلى جميع الإخوان في دولة الكويت آه، الذين يقفون دائما جنبا إلى جنب مع إخوانهم المسلمين في قارة إفريقيا بمختلف بلدانها وجزاكم الله خيرا ها نحن اليوم في هذه المدينة قمنا بتوزيع هذه المساعدة الكبيرة الذي آه، استفاد آه، منه آه، عدد كبير من الأسر بلغت حوالي 220 آه، أسرة فبارك الله فيكم أخوكم آه، أبو جاسم سمبا الهاجبة رئيس جمعية التنمية والثقافة الإسلامية والعلاقات الإنسانية في طايان كجلي فبارك الله فيكم مع حضور وفود من حركة الفلاح وجمعيات إسلامية وفروع حركة الفلاح التي تسكن في هذه المنطقة النائية البادية التي آه، تحتاج إلى كثير من المساعدات مثل حفر الآبار وبناء المساجد والمدارس وكذلك دعم الأيتام والمؤوقين ومساعدة المرضى الذين لا يجدون آه، حتى ما يعالجون بأنفسهم إذا أصابهم المرض فبارك الله فيكم فهم يرفعون إليكم أكف الطلب والالتماس لدعمهم ومساعدتهم على آه، حصول مساعدات آه، فهناك برنامج أيتام كبير جدا أوصت آه، لنا الحكومة السنغالية على إقامتها في مقاطعة لينغير ورانيرو فهذه النشاطات والمساعدات مفيدة جدا لأبناء المسلمين الأيتام والأرامل فبارك الله فيكم As you will, um, I will try to express myself in English because I have to think to thank our brothers and sisters in Kuwait who stand by these um, families. They are victims of inundation of last year in this town of Hudala in the region of Ferlo. I would like to thank them in the name of the President of Senegal and the entire administration of Senegal. I have the administrator in my left and I have the local authorities in my right. I would like, in the name of the President of Senegal, to say thank you to all our brothers and sisters in Kuwait. And I have in my recollection, I have in my mind, the lasting good relationship that link the government of Kuwait to the government of Senegal. And I remember um, in the Desert Storm operation, um, generally called the war, the Gulf War, um, we lost more than 200 Senegalese military in Kuwait. So this um, is enhancing the relationship between Kuwait and Senegal. So if um, sons and daughters from Kuwait come um, stand by families in troubles in Senegal, so the government of Senegal and in his head the president Macky Sall, a very young leader, emancipated young leader who really know what time is it, who really emancipate the anti-African um, community. So I would like in his name to say thank you to all these people, to all these brothers and sisters. As Muslim, what you are doing, Senegal really appreciate it and we say thank Voilà, je suis là en tant qu'envoyé spécial aujourd'hui du président de la République pour lui représenter dans cette cérémonie à côté du monsieur le sous-préfet et le maire de la ville euh, pour prendre part et vraiment remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette, euh, je veux dire, quête, parce que les populations de Houdala ont besoin euh, d'assistance. Puisque ce qui s'était passé l'année dernière euh, a touché beaucoup de cœurs. Donc, en tant que représentant du président de la République dans cet événement, je voudrais exprimer ma satisfaction, la manière dont la distribution a été faite, euh, parce que connaissant M. Samba en tant que collaborateur, en tant que membre du Falah, en tant que dirigeant du mouvement pour le développement de l'islam au Sénégal, on a beaucoup collaboré à travers les actions des bienfaisants du Kuwait vers la population du Sénégal, que euh, le président apprécie à sa juste valeur. Donc, euh, Tierno Samba est une personnalité exceptionnelle. Il a beaucoup contribué sans montrer aux Sénégalais qu'il nous a appuyés. Mais le président qui, à, travers lui, on a distribué des millions aux Sénégalais comme appui, comme assistance. Vraiment, il le respecte beaucoup. Il respecte tout ce qui contribue au développement du Sénégal et surtout les membres du mouvement Fala. Donc je pense que si je pouvais aller loin, et, bah. di ci teg délégation bi jóge Dakar. oyo fo waxee noon ɓe ɓe ngannduɗaa kamen gimmi Dakar. délégation bi jóge Linguère. délégation gimmiɗo Linguère. ak nit ñi fekk si fii. oyo fo heen kadi tawaaɓe ɗo e wuro heeɓe e jonde heeɓe. vraiment di gërëm aussi chef de service yi ànd ak man. oyo mbo yetta kadi chef de service aji arduɓe e makko ɓe. ak forte de sécurité yi ñi àndal. kañum e sécurité ɓe ɓe ngardi ɓe woni gendarme ɓe. ah xam naa ni man defe naa ni bés o sama bés la yéen ñi wax seen bés la mais man sama bés la o wiyoɗon mbiya ñalawma o ko ñalawma moon kono kanko wiyata ñalawma o ko ñalawma makko kanko sous préfet parce que jour bi euh, loolu daanoo fii ci euh, Oudalaye o wi sabu ɗum ñande ñalawma mettuɗo o ñande yani ɗo e ma conseil bi toogoon fii oyi kanko conseil jooɗinoɗo aboudaya ba deux heures du matin ñu ngi wax téléphone o wi ha wendoogo aɓe kaalda e téléphone mu xëyaat six heures du matin ñu nekkaat ci maag moom o ɓe pini subaka law kadi gila nde ɓe juuli salatu kadi ɓe ngoni e parce que moom laa amoon numéro sabu ɗum ko on joginooɗo numéro mum moom laa munoon laaj ko on kadi o waawno naamdaade parce que moom ndaw la sabu ɗum ko on jooɗaniiɓe ɗo dafa naa information yu o wi kabaruuji ɗi o am naa ko ci moom o heɓi ɗumen ko abu kila woo sama kilifa ko nde noon o noddi kilifa makko mi préfet département woni préfet département mo rani préfet ma moom woo wi kañum e hoore mum noddima kër gu nekk la fa xew galle fof kala ko kewno heen ña fa génn àddina eyi sankiiɓe heen seene attaque yëpp o eno ɗum arde maɓɓe fof ci moom laa jaar am o wi abu o heɓi ɗumen ɗon o rewi haw anndi ɗum parce que moo fi man nekk mo fi o wi sabu ɗum ko abu woni ɗo kanko wonano ɗo te defe naa aussi bi mu waxee loolu o wi tembo yakori nde abu haalani mo ɗum nde jottini naa ko sumay kilifa o yettini ɗum hilifaaɓe makko muy préfet woni préfet muy gouverneur woni gouverneur muy ministre de l'intérieur woni ministre de l'intérieur ba présidence woni président de la république képp ko waroon yëg mbir mi yëg nga ko oy kala ponnoɗo tintineede tinneede tinnaama normalement ci àllarba bi la ñu waroon ñëw fii o wi nde fotnoo koye alarba ɓe fotnoo arde ɗo far yàlla mu taw taw bu bëri o wi waɗi noon toɓi toɓo heewngo sapeur pompier yi jóge woon Matam pour ñëw intervenir o wi pompier en imminooɓe Matam pour arde ɗo wallude dañoo obligé delluwaat o wi ɓeen mbattindi ko dutti jottaaki ñeneen ñu doon ñëw oyi wodɓe arat hudallay digitek délégation bi jóge dakar oyo fawa hen noon ɓe ɓe ganduɗa kamen gimmi dakar délégation bi jóge linguére délégation gimmiɗo linguére ak nit ñi fekk si fii o fawa hen kadi tawaɓe ɗo e wuuro e jonde heɓe vraiment di gërëm aussi chef de service yi ak man oyo mbo yetta kadi chef de service aji arduɓe e makko ɓe ak forte sécurité yi ñu àndal kañum e sécurité ɓe ɓe gadduɓe woni gendarme ɓe ah xam naa ni man defe naa ni bés bi sama bés la yéen ñi wax seen bés la mais man sama bés la o oh, yoɗon mbiya ñalawma o ko ñalawma moon kono kanko wiyata ñalawma o ko ñalawma makko kanko sous préfet parce que jour bi euh, loolu daanoo fii ci euh, Oudalaye o oh, wi sabu ɗum ñande ñalawma mettuɗo o oh, ñande yani ɗo e Oudalaye ma conseil bi toogoon fii o wi kanko e conseil jooɗinooɗo Abou Daya ba deux heures du matin ñu ngi wax téléphone o wi ha wendoogo aɓe kaalda e téléphone mu xëyaat six heures du matin ñu nekkaat ci maag moom o wi ɓe pini subaka law kadi gila nde ɓe juuli salatu e parce que moom laa amoon numéro sabu ɗum ko ono joginoo ɗo moom laa munoon laaj o parce que moom ndaw la sabu ko on ɗo dafa naa ne information yu ma soxla woon yëpp o wi kabaruuji ɗi o yinno anndude fof am naa ko ci moom o heɓi e ci laa woo sama kilifa ko noddi kilifa makko muy préfet département woni préfet département bu rani préfet ni moom wonno ko o wi préfet wi kañum hoore mum kër gu nek la fa xew o wi galle fo kala ko kewno hen ña genn adina e sankibe hen heen attaque yëpp o wi eno dum arde mabbe fof ci mom la jaar pour abu parce que moo fi nekk man nekkuma fi o wi sabu ɗum ko abu woni ɗo kanko wonano ɗo te defe naa aussi bi ma waxee loolu o wi tembo yakori nde abu haalanimo ɗum nde jottini naa ko sumay kilifa o yettini ɗum hilifaaɓe makko muy préfet woni préfet muy gouverneur woni gouverneur muy ministre de l'intérieur woni ministre de di ci teg délégation bi jóge Dakar oyo fawa heen noon ɓe ɓe ngannduɗaa kamen gimmi Dakar délégation bi jóge Linguère délégation gimmiɗo Linguère ak ñi ñi fekk si fii o wi o fawa heen kadi tawaaɓe ɗo e wuro heeɓe e jonde heeɓe vraiment di gërëm aussi chef de service yi ànd man o yo mbo yetta kadi chef de service aji arduɓe makko ɓe ak forte sécurité ñi andal kañum e sécurité ɓe ɓe ngardi ɓe woni sandarmaɓe ɓe a xamnani man defnani naa sama besle yeni ngi wax seen besle la mais man sama besle o wi oɗon mbiya ñalawma o ko ñalawma mon kono kanko wiyata ñalawma o ko ñalawma makko kanko sous préfet parce que jour bi loolu daanoo fii ci o wi sabu ɗum ñande ñalawma mettuɗo o ñande yani ɗo e hudallahi ma conseil bi togon fii o wi kanko e conseil jooɗinoɗo aboudaya ba 2 heures du matin ñu ngi wax téléphone o wi ha wendogo aɓe kalda e téléphone mu xëyaat 6 heures du matin ñu nekkaat ci maag moom o wi ɓe pini subaka law kadi gila nde ɓe juuli salatu kadi ɓe goni e parce que mom la amon numéro m saabu ɗum ko ono joguinoɗo numéro mum mom la munoon laaj ko on kadi o wawno namdade parce que moom ndaw la saabu ɗum ko on jooɗaniɓe ɗo daf naa information yu ma soxla woon yëpp o ɗi o yinno fof am naa ko o heɓi ɗumen e hunde ko abu ci laa sama kilifa ko nde noddi kilifa makko muy préfet département woni préfet ma moom woo na ko o wi préfet kañum hoore mum noddima kër gu nekk lafa fa xew o wi galle fof kala ko kewno heen ña fa génn eyi sankiɓe heen seene attaque yëpp o wi eno ɗum arde maɓɓe fof simom lajar pour am o wi koye abo o heɓi ɗumen ɗon o rewi haw andi ɗum par ce que mofi nek man nek mofi o wi saabu ɗum ko abou woni ɗo kanko wonano ɗo te defana aussi bi mooheloo ɗum o wi tembo yakori nde abou haalanimo ɗum nde jabtinina ko somayi kilifa o yettini ɗum hilifaɓe makko mi préfet woni préfet muy gouverneur woni gouverneur muy ministre de l'intérieur woni ministre de l'intérieur ba présidence woni président de la république képp ku waroon yëg mbir mi yëg nga ko oy kala ponnooɗo tintineede tinneede tinnaama normalement ci alarba bi la ñu waroon ñëw fii o wi le fonnoo koye alarba ɓe fonnoo arde ɗo far yàlla mu taw taw bu bëri o wi waɗi noon toɓi toɓo heewngo sapeur pompier yi jóge woon matam pour ñëw intervenir o wi pompier en imminooɓe matam pour arde ɗo wallude dañoo obligé delluwaat o wi ɓeen mbattindi ko dutti jottaaki ñeneen ñu doon ñëw oyi wonɓe arade la république képp ko waroon yëg mbir mi yëg nga ko oyi kala ponnoɗo tintineede tinneede tinnama normalement ci alarba bi la ñu ñëw fii o wi nde fonno koye alarba ɓe ponno arde ɗo fat yàlla mu taw taw bu bëri o wi waɗi noon toɓi toɓo heewngo sapeur pompier yi jóge woon matam pour ñëw intervenir o wi pompier en imminoɓe matam pour arde ɗo wallude dañoo obligé delluwaat o wi ɓen mbattidi ko dutti jottaaki ñeneen ñu doon ñëw o yi woɗɓe arannoɓe neuf heures lañ jogue fële ɓen ko neuf heures ban heure lañ egsi fii seize heures lañ egsi o yiɓe gari ɗo ko quatre heures kikiɗe par ce que yon bi dafa dafa ɗum lawol ngol moƴƴano welano arde mais loolu aussi o yi ɗum noon ah ndogolu yàlla la ko hoddiro allah ñi génn àddina o yi sankiɓe ɓe nañande ñaanal o yi yon duwanoɓe fa ñu jëm o yittoɓe goni to gënal leen fi ñu jóge yo ɓuranɓe aduna ga yàlla wàcce yërmandem sen o yàlla waɗaɓe toon e, e moƴƴere mbooloo mi julit yang fa fekk o kamɓe dendangal julɓe ɓeɓe tawi toon parce que yu mel nii tiis la oyi saabu ɗum ko wayi ni ko sunaare mais nag borom bi moo ko dogal oyi kono noon ganden ko allah hoddiri ɗumen moom moom tawam ko kanko jeeyi ndiyam makko moom moom ko kanko jeeyi leydi moom moom ay nitam kanko jeeyi yimɓe makko donc bu dogalee dañuy wax ni alhamdulilah so hoddiri mbiyantan alhamdulillah jetten parce que moo ko dogal sabu ko kanko waɗi ñun dogaluñ ko o wona enen mbaɗi donc ñun o enen comme yalla indi nañu fi oy wi so allah addi endo lepp liñ ci waron taxaw taxaw nañ o wi kala ko den daraade hen en darani mais damay geureum chef de service yi oy wi mbo yette hen chef de service aji di parce que ñom ak gendarmerie sabu dum kamɓe e gendarmeaɓe liñ ci am lepp mu leer oy kala ko heba hen ko laabi ci ñom la jógee koy mabbe immi parce que ñoo ñoo def enquête ak gendarmerie kamɓe gari be mbaɗi humɓe enquête uji mabɓe parce que mbir bu amé oy wi sabu kala ko kebi ñu wax ni dañuy ñew rek enquête o wi yimɓe ne ngaɗani mbaɗa enquête ku nekk dina wax lu bari o wi gooto fof wonata habrude no welda conseil bi joxnamo liste yo xam ne nii man leer na ni ñooñu dara jotu leen o wi conseil o o ko wax kono noon ko kanko haali par am na liste bu ñu defaroon sabu ɗum ne woodi liste mbaɗanooɗo mais moo ñu dimbali ba ñu gis lépp o wi ko kanko walli ɓe haɓe keɓi parce que may wax toujours o wi ko wiyata kala sahaa ñun war nañu sant yàlla o wiyana nde en poti yettude allah oyso hunde kewi dalu la heɓanima nga bëgg mu dal la mais doo ñaan jàmm parce que yaakaar nga dara am dara moo nga bëgg loolu dal mais loolu baaxul ɗum moƴƴani bandiraɓe ñii am nañu lu dal seen kaw di ci teg délégation bi jóge Dakar oyo fawa hen noon ɓe kamen gimmi Dakar délégation bi jóge Linguère délégation gimmiɗo Linguère ak nit ñi fekk o wi fawa hen kadi tawaɗo ɗo e wuura heɓe e jonde heɓe vraiment di gërëm aussi chef de service yi ànd man o yo mbo yetta kadi chef de service aji arduɓe e makko ɓe ak force de sécurité ñi andal kañum e sécurité ɓe ɓe gardi ɓe woni gendarme ɓe ah xam naa man defe bisbi ni bés bi sama besle la nga wax seen bés mais man sama besle o yo ɗon mbiya ñalawma o ko ñalawma moon kono kanko wiyata ñalawma o ko ñalawma makko kanko sous préfet parce que jour bi euh, loolu daanoo fii ci euh, Oudalaye o wi sabu ɗum ñande ñalawma mettuɗo o ñande yani ɗo e hudallahi ma conseil bi togon fii o wi kanko e conseil jooɗinoɗo aboudaya ba deux heures du matin ñu ngi wax téléphone o wi ha wendogo aɓe kalda e téléphone mu xëyaat six heures du matin ñu nekkaat ci maag moom o wi ɓe pini subaka kadi gila nde ɓe juuli salatu kadi ɓe goni e parce que moom la amon numéro m saabu ɗum ko on joguinoɗo numéro mum moom la munoon laaj ko on kadi o wawno namdade parce que moom ndaw la saabu ɗum ko on jooɗaniɓe ɗo dafa naa information yu ma soxla won yëpp o wi kabaruji ɗi o yinno anndude fof amna ko ci mo hebi ɗumen e hunde ko abu ci la wo sama kilifa ko nde noon noddi kilifa makko muy préfet département woni préfet département mo rani préfet ni ma moom woo o wi préfet wi kañum hoore mum noddiima kër gu nekk la fa xew o wi galle fo kala ko kewno hen ña fa adina eyyi sankiɓe hen seene attaque yepp o wi eno ɗum arde mabɓe foof simom lajat pour am o wi koye abou o heeɓi ɗumen ɗon o rewi haw andi ɗum par ce que mofi nek man nek mofi o wi saabu ɗum ko abou woni ɗo kanko wonano ɗo te defana aussi bi mooheloɗo o wi tewmbo yakorinde abou haalanimo ɗum nde jottinina ko somayi kilifa o yettini ɗum hilifaɓe makko mi préfet woni préfet muy gouverneur woni gouverneur muy ministre de l'intérieur woni ministre de l'intérieur ba présidence woni président de la république képp ko waroon yëg mbir mi yëg nga ko oy kala ponnoɗo tintineede tinneede tinnaama normalement ci alarba bi la ñu waroon ñëw fii o wi nde fonno koye alarba ɓe ponno arde ɗo fat yàlla mu taw taw bu bëri o wi waɗi noon toɓi toɓo heewngo sapeur pompier yi jógewoon no matam pour ñëw intervenir o wi pompier en imminoɓe matam pour arde ɗo wallude dañoo obligé delluwaat o wi ɓen mbattidi ko dutti jottaaki ñeneen ñu doon ñëw o wi woɓɓe ara ɓeɗo hoddiroyen e mumen ñëpp ñu ngi koye mettitlu yimɓe fof ne jurmaka yow yàlla sutural na ba loolu dara dalu la ci allah wallima nga jàppale ñooñu mais bul boole sa bopp ci ñooñu parce que bokkoo ci mballa ɓen kono woto wiyaɗa watta hoorema e ɓen moo tax damay toog ba caag ma ni mais man fii laa nit ñi dañuy ñaan euh, musiba di dal seen kaw rek. loolu baaxul. loolu du yëfu jullit oy ɗum julɗo fotani ɗum wadde yow kay comme julit nga o haadi an ka julɗo jàppale sa mbokk julit o wi wallu bando julɗo mais bul ni man dal na ma te dara dalu la o woto wiyata hunde heeɓima taw haydara heɓa du événement bi rek événement bu nekk sénégalais naturellement moom lu xew mu boole ci boppam o wi ko noon tan sénégal naaɓe ko noon kala ko keewi ene waɗa heen hoore hande kay ko dañal ne ñi ñaan jàmm nag o wi en duwo jam enen beneen mbii bi o gueɗe gonguel man dinaa gërëm le monsieur le maire

udalaay day am wallam o wi fudallaayi kala ko ari hankkadi heɓat geɗal noon nag filaa fekk o ɗum noon ko ɗo o ɗum dama leen ciy jàppale rek ànd ak ñoom o wi o wondata maɓɓe tan ombo wallondira maɓɓe mais euh, ambassadeur o wi omo wiya ambassade o def naa yàlla moo boole ci mbir mi tey o wi ko allah addi ɗum ɗo hannde tawtora parce que lu bëri dañuy wax o ko heewi ne haalee mais li nga gis sa bët kono noon ko jiiruɗaa gite ma du bokk ak nettali e o arrondissement bi rëy na trop o arrondissement ne mawni 15708 km2 oy ko sappo e joyi ujunere e temedde jeeɗiɗi km2 30 fois la région de thies omo fecco dakar laabi capantati mais yalla thies mais yalla mi ngi ñu sutural oy kono non allah ne suuri fep fépp fuñ fa war dem oy kala toɓe ponno hen ak fépp fu ñu war def oy kala ko ponno wadde hunde dinañ fa taxaw oy maɓe daro ɗon pour wax la oyo wiima tan tey boo demee Louga Cekodi. hande da ngay gas forage. forage nan toon nga dem Salalatu. jaha Salalatu ñuy gas forage. forage nan toon nga dem Kouroukaran. o jaa Kouroukaran ñuy gas forage. forage nan toon et au président de la république. oy te ɗum ɗon fof ko Allah e nalaaɗo mum président de la république. waɗi parce que ñun ñooy ndawam. te li la wax Oudalaye lu tuuti la. par rapport forage yi fi dugg poste de santé. Euh, parque à vaccination ak ay chateau de oy ko haalanimo ɗo e hudallay ɗum ɗo ko haala ɗo luggiteekoje kuru ko commune hudallay ɗum ko seeɗa heen so a ƴeewi banggueji goɗɗi ɗe commune aji goɗɗi ko waɗa toon gila e dispensaire uji école aji kañum e parque aji wax e galli nayi to pingate eko nanndi en eko nanndi heen am na ñetti atti ginaaw oy duuɓi tati caggal ñu bëri xalaat to ñoon am e chateau de oy gure keewɗe ɗaminanooki ina keɓa chateau de mais lu yàlla tudd la oy kono noon koko allah hoddi moo tax exina oy ko ɗum waɗi yettima mais ma wax suñu président man ki laay président Alfala fii ci man. Eh. Samba. <laughs> o wiyeede président Alfala kanko ko Samba haalay ko Samba woni président. bi mbir bi amee. o winde ɗe kewi ɗo. moom moo ma woo téléphone. o wi Samba noddimo téléphone. ni ma préfet. o wi mo préfet. dama bëgg enquête bi ñu am def lépp. o wi jinmi ko kala enquête baɗaɗo am document ñi nga xam ne ñoo gaañule ñoo yakkule et cetera o wi mbiɗa yiɗi so woni cimtol ngol laaɓi dokkami ngol mi waawa tugnade heen am naa ñu e am naa ñu yaakaar ci ñoom bu ma leen ko tàllalee dinañ ñu jàppale o wi ne waɗi ɓe ɗaminima e mumen somi haala miɗa maɓe mballu en heen mais maa ngi lay remercier bu baax maa ngi lay gërëm bu baax o yombo jaarna hen samba halay ombo yettuma no feewi di la wax ni o mbo wiima samba ñun nga dimbale o ko kamɓe mballuɗa parce que gouvernement bi ministre de l'intérieur ñëw nañu fi ak hélicoptère laamungu gouvernement o neli ministère delluwaat yónni ñi ak préfet ak gouverneur ñu ñëwaat fi oy ruti kadi neli ɓeeɗo chef de service aji pour indi ay ndimbal ngari ɗo ɓe gaddi ballal pour euh, ñi amoon sinistre bi ñu indi leen ay ndimbal oy dañoɓe sunaaɗo ɓe ɓe mballe yow nga yow tay ga tegaat ci lii oy an ari hannda fawi heen ɗum ɗo sam mais defaloo ko sa bopp oy wona hoorema mbaɗanɗa gouvernement nga ko defal ko laamu ngu mballuɗa ak say mbokk jullit kañum e ma julɓe ɓe parce que yéen a wax saabu ɗum ko onon mbi jullit bu nekk julɗo fof bu mënee taxaw moroomu jullit dem na ko jàppale so waawi dadanaade julɗo bandum fof yo walliri ɗum ɗon te loolu wane na ko te ɗum ɗon on kolliri ɗum ɗo a holliri ɗum ɗo hannde et là sa mbokk julit nekk ci tolof tolof o wi banda julɗo wona caɗele nga taxaw ñëw jàppale ko o wi ndaroɗa ngara mballaam loolu desetoo ko dara o wi a heddanaani ko hay dara to bange moƴƴere mais nag man am na tuuti lu ma leen bëgg a wax o wi ko noon kanko won seeɗa mbo yiɗi haa ambassadeur oyi ambassadeur ñun ñëpp ñu ngi wooye suñu bopp jullit oyi enen fof eɗen mbiya koye men ken julɓe mais bu ñu xoolee suñu xol yi kono sen ƴeewi ɓerɗe ɗe jullit gi des na de ata jul diine on heddi des na de julɗi ne heddi parce que ñu bëri oyi saabu ɗum heewɓe yaa ngi gis sa moroomu jullit aɗa yiya julɗo banda mu nekk ci jafe-jafe wonnay caɗeele doo ko wallu a wallata ɗum yaa ngi gis sa moroomu jullit jiya banda juulɗo lu bon rek nga koy yéene taw ko boni tan tolof tolof rek nga koy yéene jiɗanndamo tan ko caɗeele ba pare nga ni jullit nga ha ngayna noon mbiya ka juulɗo des na de o wi julde ñu bëri ay kaala o wi heɓe jogi kaalaji ak ay kurus jogo kurus aji mais fële kono noon to amul kaala amul kurus to ala kaala ala kurus la liggéey rek moo fay ne ko liggéey ma tan tawoyta toon amul leneen ala goɗɗum parce que bu ñu nas suñu bopp. o wi woto punten koye men. ci diine dem. o wi kala diine mo jaaɗa. nañ ko rëddee. o wi no winndiraani. yàlla dafa fonk doomu aadama ci diine boo dem. o wi allah ina teddini neɗɗo allah teddini. diine boo dem. kala diine mo jaaɗa allah ina teddini neɗɗo dafa foog moo koy sàkk o wi ko allah tagi neɗɗo waaw ni leen nag jàppale leen mo doomu aadama am leen njërimal si doomu aadama jaggan mbo neɗɗo mbo teddini kanko tagi ɗumen mbeyaaɗo jogo yow nga ni nag bëgg nga dara lu baax ci yàlla te ngay def lu bon toujours sama romo julit mbiya aɗa yiɗi moƴƴere immaade allah kono ñannde faa aɗa waɗa bande juulɗo ko boni fo jom hoto paaɗa aan ah yàlla moom aljana aljanaam ji de o wi allah de kam ci aljanna muɗum te liggéey bu baax moo fay dugal nit te aljanna kam ko liggéey moƴƴo tan xol bu set ak jëf ju rafet rek moo yóbbu ɓernde laamde e gollal moƴƴal tan nawata toon xol bu set ak jëf ju rafet o wi ɓernde laamde e moo la mën a yóbbu foofu oy ɗum tan nawatma aljanna boo fekkee ni da nga yaakaar kaala bu rëy ou bien kurus bu rëy oy so tawi jaagonɗa kaala ma walla fii la yem ci adduna la yem oy ɗum ko ɗo haaɗate aduna fii la yem yettoyta ko laakara beneen bi o wi gonngel ngel beneen bi. oy gon ngel ngel. julit. juulɗo mën nañ ko wax lépp. oy hunde fof ne wawi ɗum ba mu des fen ha heddo fenade li ñu gën a rëbb ci julit mooy fen oy ɓuuri añede julɗo fof ko fenade te léegi nag ni ñi ñu ngi jël jikko bu bon o wi te ɗum noon eɗen mbaɗa naa fen pour am alal naa fen pour jàll ah. o wi neɗɗo fena beele daña jawdi yo fen beele waaw ñun nag fan lañ jëm léegi oy ɗum hoto paaɗen kenn xamu o wi en gandat paaɗen moo tax may ñaan yéen ustaas oyomo ñaago onon seernaaɓe ɓe ne nit ñi xoolaat seen jikko yo yimɓe ɓe ƴewta jikko nañ defaraat jikko yi yo jikko ɗi pewnite par que lii am sabu ɗum ɗum ɗo ko footi ci waxtu yi ñu toll e sahaa o mo gonɗen daawol am o wi heewano wadde dafa mel ni nit ñi dañuy soppeeku o wi ko yimɓe ɓe mbayli noon luñ fi daawol gis o wi ko en jiyatano ɗo min ko fay gis eɗen jiya ɗum ɗo jooni te loolu baaxul ci réew te ɗum moƴƴaani e leydi baaxul ci askan moƴƴaani e leñol loolu moom vraiment oustaz. ooy CRNB. ambassadeur bëggoon naa yéen ñëpp euh, euh, président. ngeen ah. ñëpp am ci taxawaay. ooy dum yoo CRNB. il faut nit ñi seen seen seen. ñun diine bi ñu am dañ ko fonk. ooy diine mel ne dem ponki. sell na. omo diine ko laab. na islam. ooy islam waaw nañ ko sellal. problème bi foofu la nekk. problème bi sell na wax nañu lépp. mais ñun ci suñu pratique ak suñuy jëfin mooy nekk problème kono noon golle meɗen de ko ɗen goniɗo laaɓaji loolu nag il faut mu deñ oyi ɗum noon il faut alay il faut ko nit ñi gëm seen bopp oyi yo neɗɗo gongɗin loo mën a am ci àddina kala ko mbawɗa dañje aduna dañ ko fi bàyyi de ko ɗo gaccata ɗum juróom ñaari mètre per kal ngay demee fële so neɗon yaha ko mètre e jeeɗiɗi baggi tan naworta ak jëf ji nga defoon ci kaw e àddina kañum golle muɗum ɗe golluno loolu moo lay fekk si bammel o ko ɗum tan tawituma yanade maɗa nañ bàyyi suñu xel bu baax ci ci men ko moƴƴi samba oyomo wima samba man li ma la waxoon sama bureau laa fii ko winoma bureau makko ko ɗum haalantumaa ɗo li ngay def oy ko mbatta ko ngir yàlla sabi allah continue ci yaa jokkuɗen golle nit ñi buñ la ñaanalul oy so yimɓe ɓe duwanaaji yàlla ñaanal moo ëpp doole wi duwawu allah o ɓuri mawnude duwawu yimɓe ɓe boy def oy saɗa waɗa defal ngir yàlla oy waɗir sabi allah moom mooy atte mooy joxe oy ko allah ñaawata ko allah rokkata mais tant que yaa ngi sonn mu jëm ci nit ñi kono saɗa tampana yimɓe ɓe toujours yàlla mi ngi lay jappale mu yomb ci oy saa fo allah ne newnan ma ko dañata ko ne ɓeydo en tout cas ñun oy sabu ɗum enen tant que ñi ngi ci arrondissement bi oy haadaɓe ɗo e dinen taxaw jàppale leen toujours oy maɓe ndaro ɓe mballa on parce que loolu mooy suñu mission sabu ɗum ko ɗum woni golle maɓɓe e dina wax oh, ni lii udalay e eh, ma wi ɗum ɗo kadi onon hudallay na lenen ak lenen ak lenen ak lenen ngi ñëw o wi goɗɗum e eh, goɗɗum ma ar eh, sama conseil mi ngi joy léegi école o oh, wi joni joni conseil one oh, waytotono affaire école adduna xewil sotti o wi aduna hay hunde gas finani tan gasi am na dëkk yu bëri mosuñu woon xalaat ni dinañ am école o wi gure kewɗe miijotono ko gonta dañ école mais lo gis day ramdi ñëw rek o wi kala ko jiiɗa noon koko laddata tan kilo ndigam magasin bi daw jeg ɗin ko gam o wi rawande sa wiyanoma aɗa daña o magasin a jaɓata yan cibir magasin bi tawi magasin o nani place nen la on o wi ko ɗo ko te yangi totti bir taba digiral wonno hande aɗan ɗo jooɗi aɗa e ɓuuɓi lifi indi li indi fi eh, indi fi forage bi o wi ko addi ɗum ɗo ko addi forage o mone indi lenen ak lenen ina wawi addude goɗɗum e goɗɗum bes bu yalla dogalende ngeen am école inchallah allah hoddiri fof ñande hen on dañat so weeli allah ah, amul leneen ala goɗɗum woni heen li ma lay wax oy ko wiyanma ne jullit yëpp bokk xool o wi yo julɓe ɓerɗe ngon gootum bokk fi ñu jëm o wi feemen jogoɗen anni e gooto sonol surtout o wi ko tampini en noon fof fukk day gas o sappo gasat ñaar fukk di suul ngubba mais o wi ngaska ka luggitta loolu moo ñu sonol o wi ko ɗum tampini en par que loo def lu baax o wi kala ko mbaɗɗa e moƴƴere yow ñu bëri nañ taxaw ni lii baax na o wi won dartoɓe mbiye ɗum ne moƴƴi mais am na kuy taxaw fële ci ginnaaw ni ah kii dafa def dara lu kono won gonɗo toon wiya eh o oh, waɗaani haydara o oh, gollaani yàlla moo bindi nit noonu mais noon yimɓe la ngay def lu baax def ko rek o wi kono noon aan ko mbatta ko moƴƴi ko en administration bi o wi kamɓe baŋnge laamu bu ci yàlla àndee so tawi allah jaɓi tant que ci bopp arrondissement bi. o haadi allah ne waɗi ɓe ɗo e arrondissement he. bopp département bi kañum lépp lu ñu mën a def pour suñuy population. kala ko ɓe mbawi waɗande ha yimɓe nafa ɗumen. dinañ ko def. oyo kamɓe maɓɓe parce que looloo tax ñu nekk. sabu ko ɗum addi ɓe ɗo. te ñun ñaan nañ yàlla ñun ñi ñëpp. oyo kadi kamɓe aɓe ñaago. ni ñuy fayee ko par weer. ko ɓe joɓoto joɓete lewru. Ah, mu lew ñu. oyi ɓe jiiɗi ko ɗum wona ko parce que ɓuñu tedde suñu bureau yi dara lañu lekk lewuñu oyi soɓe gonɗa ɓe liggo aɓe joɓe ɓe liggaki haydara aɓe joɓe ko ko riba wonata ɗiga gisti suñu biir ñoo xam dañu liggéey ba retraité duñu dara o wiya ɗe ne waɗi hen liggotoɓe ha tiri taw haydara dañani par ce que aqla saabu ɗum ko hakke ɓe ñamata te de war nañ tubayi xel bu baax te ɗum eɗen poti wattude hen hakkillaji men arrondissement bi reyna trop oyi arrondissement ne mawni mais ñii oyi kono ɓeeɗo e kam préfet war a def muy guddi muy bëccëg dinañ ko def o wi jamma e ñalaam fof maɓe mbaɗ ɗum looloo président la république ñindi ñu fi o ko ɗum président addiri donc daf ñu wax ñu sàmmale ko askan bi o wi o wi ko ah, leydi ndi bu fekkee ni de bu fekkee ni de ay taalibe o wi tawi koɓe almuɓe kamɓe liñu sin seni sant dañ ko war a dégg o ko sernaɓe maɓɓe jamirɓe ko ko ɗum ɓe mbaɗata maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp wasalam ne wayno sonnoɓe neuf heures lañ jógee fële ɓen ko neuf heures ban heure lañu ex fii seize heures lañu ex o wi ɓe ngari ɗo ko quatre heures kikiɗe parce que yoon bi dafa dafa yàqoo sabu ɗum laawol ngol moƴƴano welano arde mais loolu aussi o wi ɗum noon ah ndogalu yàlla la ko hoddiro allah ñi génn àddina o wi sankiɓe ɓe dañan di ñaanal o wi yon duwanoɓe fa ñu jëm o wi to ɓe boni to gënal leen fi ñu jóge yo ɓuran ɓe aduna ga yàlla wàcce yërmandem sen o wi yàlla waɗaɓe toon e eh, eh, moƴƴere ak mbooloo mi julit yang fa fekk o wi kamɓe dendangal julɓe ɓe ɓe tawi toon parce que yu mel nii tiis o wi sabu ɗum ko way ko sunaare mais nag bi moo ko dogal o wi kono noon ko allah hoddiri ɗumen moom moom tawam ko kanko jeyi ndiyam makko moom moom ko kanko jeyi leydi moom moom ay nitam kanko jeyi yimɓe makko donc bu dogalee dañuy wax ni alhamdulilah so hoddiri mbiyen tan alhamdulillah jetten parce que ko dogal sabu ɗum ko kanko waɗi ñun dogaluñ ko o wona enen mbaɗi donc ñun o enen comme yàlla indi nañu fii o wi so allah addi en ɗo lépp liñ ci waroon taxaw taxaw nañ ko o wi kala ko ponnoɗen darade heen en darani mais damay gërëm chef de service yi o wi mbo yette heen chef de service aji ɗi parce que ñoom ak gendarmerie sabu ɗum kamɓe gendarmeɓe liñ am lépp mu leer o wi kala ko heɓa heen ko laaɓi ci ñoom la jógee koye maɓɓe immi parce que ñoo ñoo def enquête ak gendarmerie kamɓe ngari ɓe mbaɗi humɓe enquête uji maɓɓe par que mbir bu amee o so ɗum kala ko kewi ñu wax ni dañuy ñëw rek enquête o wi na ne ngara ne mbaɗa ku nekk dina wax lu bari o wi goto foof wonata habrude no welda conseil bi joxnamo liste yo xam ne ni man leernamo ni ñooñu dara jotulen o wi conseil o tottima hen ɓe ganduɗa o mbaɗi ɓen hay hunde heɓani ɗum mais moom mooma ko wax kono noon ko kanko haali parce que am na liste bu ñu defaroon saabu ɗum ne woodi liste baɗanoɗo mais moo ñu dimbali ba ñu gis lépp oy ko kanko walli ɓe haaɓe keeɓi parce que li may wax toujours oy ko wiyata kala saaha ñun war nañu sant yàlla o wiyana nden poti yettude allah mais bu dara amee oy so hunde keeɓi dalu la heɓanima nga bëgg mu dal la o mais doo ñaan jàmm parce que yaakaar nga dara am dara moo tax nga bëgg loolu daw mais loolu baaxul ɗum moƴƴaani banndiraaɓe ñii am nañu lu dal seen kaw oyi ɓeeɗo hoddiro yan e ñëpp ñu ngi koy mettitlu yimɓe fof ne njurmaaka yow yàlla suturaal ba lool dara dalu la ci allah wallima nga jàppale ñooñu mais bul boole sa bopp ci parce que bokkoo ma e moo tax damay toog ba caag ma ni mais man fii laa gisee nit ñi dañuy ñaan euh, musiba di daal seen kaw rek. Ah, loolu baaxul. loolu du yëfu julit. yow kay comme julit nga. jàppale sa mbokk julit. mais bul nii man dal na ma te dara dalu la. te du événement bi rek événement bu nekk. sénégalais naturellement moom lu xew mu boole ci boppam. o wi ko noon tan sénégal naaɓe ko noon kala ko keewi ene waɗa heen hoore an kay ko dañal nañi ñaan jàmm nag o wi en duwo jam enen beneen mbir bi o wi gene gongel man dinaa gërëm le monsieur le maire o wi omo yetta monsieur le maire parce que lépp lu am ci commune am oy sabu ɗum kala ko kewe commune ma lu mu ci yëg à la minute près dina ma wax ma ko oy kala ko nani heen nde wonata minute aji ɗitta to haalanima mais mën naa leen wax fii oyon wawi wiide on ɗo lépp luy dugg ci commune bi kala kone naata e commune he Oudalaye toujours de am wàllo loolu mën naa leen ko garantir geɗal muɗum o mbaɗa ɗum on garanti muy ci wàllu docteur muy ci wàllu école woni école muy lu mu mën a nekk kala ko ɗum wawi wonde Oudalaye day am wàllam oyi Oudalaye kala ko ari hankkadi heɓat geɗal loolu nag fi laa ko fekk oyi ɗum noon ko ɗo tawi ɗum dama leen ciy jàppale rek ànd ak ñoom oyi o wondete maɓɓe tan omo wallodira maɓɓe Euh, ambassadeur o wiyombo wiya ambassadeur def naa yalla mo la bolé ci bir bi tay. o wi ko allah addi dum do hande tawtura. parce que lu bari dañuy wax o wi ko hewina haale mais li nga gis ak sa beut. Kon non ko jiiruɗa gite ma du bok ak li ñu lay nettali o wi dum jiidata e ko be kalantuma nana arrondissement bi rëy trop o wi arrondissement ne mawni

forage nan toon nga dem salalatu jaha salalatu ñuy gas forage forage nan toon nga dem kuru karan o jaa kuru karan gas forage forage nan et ça c' grâce au président de la république eh, o e ɗum ɗon fof allah e nalaa président de la république waɗi parce que ñun ñoy ndawam oy ko kamɓe gonanimo do te lima la wax udalaye lolu lu touti la par rapport ak forage fi dugg poste de santé euh, parc à vaccination ak ay château d'eau oy ko mo do e hudallay dum do ko haala ɗo luggitee ko je kuru ko commune hudallay dum ko seeda hen so a ƴeewi banggueji goɗɗi ɗe commune aji goɗɗi ko waɗa toon gila e dispensaire uji école aji kañum e parc aji wa e galli nayi to pingate eko nandi hen eko nandi hen amna ñetti atti ginaw oyi duuɓi tati caggal ñu bëri xala tu ñoon am e sete do oyi gure kewɗe ɗaminanoki ina keeɓa sete do mais lu yallah tuddu la oyi kono noon koko allah hoddi mo tax exina oyi ko ɗum waɗi yettima mais mo wax suñu président man ki laay woowe président Alfala fii ci man. Eh. Samba. oo yu weesu président Alfala kanko ko Samba halay ko Samba woni président. bi mbir bi amee. o winde gueɗe ɗe kewi ɗo. moom moom moo téléphone. o wi Samba noddimo téléphone. ni ma préfet. o wi mo préfet. dama bëgg enquête bi ñu am def lépp. o wi jinmi ko kala enquête baɗaɗo ma am document ñi nga xam ne ñoo gaañule ñoo yàqule et cetera oyi mbiɗa yiɗi so woni cimtol ngol laaɓi dokkami ngol mi wawa tugnade hen am naa ñuma e am ñuma yaakaar ci ñoom bu ma leen ko tàllalee dinañ ñu jàppale oyi ne waɗi ɓe ɗaminime mumen somi haalamiɓe maɓe mballu en hen mais maa ngi lay remercier bu baax maa ngi lay gërëm bu baax oyo mbo jaarna hen samba halay ombo yettuma no feewi di la wax ni oyo mbo wiima samba ñun nga dimbale oyo ko kamɓe mballuɗa parce que gouvernement bi ministre de l'intérieur ñëw nañu fii ak hélicoptère laamungu gouvernement o neli ministère delluwaat yónni ñi ak préfet ak gouverneur ñu ñëwaat fii oy rutti kadi neli ɓeeɗo chef de service aji pour indi ay ndumbal gari ɗo ɓe gaddi ballal pour euh, ñi amoon sinistre bi ñu indi leen ay ndimbal oyi dañooɓe sunaare ɓe ɓe mballe yow nga ñëw ta tay nga tegaat ci lii oyi an ari hannde a fawi heen ɗum ɗo samba mais defaloo ko sa bopp oyi wonaa hoore ma mbaɗanɗa gouvernement nga ko defal ko laamu ngu mballuɗa ak say mbokk jullit kañum e banndiraaɓe ma juulɓe ɓee parce que yéena wax sabɗum ko onon mbi jullit bu nekk julɗo fof bu mënee taxaw moroomu jullit dem na ko jàppale so waawi dadanaade julɗo bandum fof yo wallir ɗum ɗon te loolu wone na ko te ɗum ɗon on kolliri ɗum ɗo a holliri ɗum ɗo hannde e la sa mbokk julit nekk ci tolof tolof o wi banda julɗo wona caɗele nga taxaw ñëw jàppale ko o wi ndaroɗa ngara mballam loolu desetoo ko dara o wi a heddanani ko hay dara to banggue moƴƴere mais nag man am na lu ma leen bëgg wax o wi ko noon kanko won seeɗa mbo yiɗi haa ambassadeur oyi ambassadeur ñun ñëpp ñu ngi wooye suñu bopp jullit oyi enen fof eɗen jogi koye men ken julɓe mais bu ñu xoolee suñu xol yi kono sen ƴeewi ɓerɗe ɗe jullit gi des na de ata jul diine on heddi des na de julɗi ne parce que ñu bëri oyi sabu ɗum heewɓe yaa ngi gis sa moroomu jullit aɗa yiya julɗo banda mu nekk ci jafe-jafe wonnay caɗeele doo ko wallu a wallata ɗum yaa ngi gis sa moroomu jullit jiya banda juulɗo lu bon rek nga koy yéene taw ko boni tan tolof tolof rek nga koy yéene jiɗannaamo tan ko caɗeele ba pare nga ni jullit nga ha ngayna noon mbiya ka juulɗo des na de o wi julde ma diine ma ne heddi ñu bëri ngi yore ay kaala o wi heɓe jogii kaalaji ak ay kurus jogoo kurusaji mais fële kono noon to amul kaala amul kurus to ala kaala ala kurus la ngay liggéey rek moo fay ne ko liggéey ma tan tawoyta toon amul leneen ala goɗɗum parce que bu ñu nax suñu bopp o wi woto punten koye men ci diine dem kala diine mo jaaɗa nañ ko rëddee o wi no winndiraani yàlla dafa fonk doomu aadama ci diine boo dem o wi ina teddini neɗɗo allah teddini diine boo dem kala diine mo non. Allah ina teddini neɗɗo dafa foog moo koy sàkk o wi ko Allah tagi neɗɗo waaw ni leen nag jàppale leen ma doomu aadama am na njërimal si doomu aadama jaggan mbo neɗɗo mbo teddini kanko tagi ɗumen mbeyaaɗo jogo heen ɓernde wonde yow nga ni nag bëgg nga dara lu baax ci yàlla te ngay def lu bon toujours sama romu julit mbiya aɗa yiɗi moƴƴere immaade Allah kono ñande faa ɗa waɗa banda juulɗo ko boni fo jëm hoto paaɗa aan ah yàlla moom ajanaam ji de o wi Allah de kam te aljanna muɗum te liggéey bu baax moo fay dugal nit te aljanna kam ko liggéey moƴƴo tan xol bu set ak jëf ju rafet rek yóbbu nit bernde laamde e gollal moƴƴal tan nawata o wi bernde a boo fekkee ni da nga yaakaar kaala bu rëy bu rëy o wi so tawi jaagonɗa kaala ma o wi ɗum ko bi o wi gonngel ngel beneen bi o wi gonngel ngel ko wax lépp o wi hunde fof ne waawi ɗum ba mu des fen ha heddo fenande li ñu gëna reub ci julit moy fen o yi buri agnede jullo foko fenande te legi nak nit ñi ngi jël jikko bu bon o te dum non eden ba na fen pour am alal na fen pour jall o neddo fen belen dañu jawdi yo fen belen wa ñu ne fa lañ jëm legi o yi dum hoto paaden ken xam o wi ngandar paaden motax may ñaan yeen oustasi o wi mo ñaago onon sernabe ne nit ñi xolat sen jikko yo yimbe be ƴewta jikko nañ defaraat jikko yi yo jikko ɗi pewniti parce que li am sabu ɗum ɗo ko footi ci waxtu yi ñu toll e saha o mo gonɗen daawol am o wi heewano wadde dafa mel ni nit ñi dañuy soppeeku o wi ko yimɓe ɓe mbayli noon luñ fi daawol gis o wi ko en jiyatano ɗo min ko fi gis eɗen jiya ɗum ɗo jooni te loolu baaxul ci réew te ɗum moƴƴaani e leydi baaxul ci askan moƴƴaani e loolu moom vraiment oustaz. ooy CRNB. ambassadeur bëggoon naa yéen ñëpp euh, euh, président. ngeen ñëpp am ci taxawaay. ooy ɗum yo CRNB. il faut ñu dellusiwaat seen nit ñi ci seen seen bi ñu am dañ ko fonk. ooy diine men eɗen ponki. sell na. omo diine o ko laaɓɗo. sell na islam. ooy islam koko waaw nañ problème bi foofu la nekk. problème diine bi sell na wax nañu lépp. mais ñun ci suñu pratique ak suñuy jëfin mooy nekk problème kon noon golle meɗen de ko ɗen goniɗo laabaji loolu nag il faut mu deñ oy ɗum noon il faut alay il faut que nit ñi gëm seen bopp oyi yo neɗɗo gonɗin loo mën a am ci àddina kala ko mbawɗa dañde aduna danga ko fi bàyyi de ko ɗo gaccata ɗum juróom ñaari mètre percal ngay demee fële so neɗɗon yaha ko métre e jeeɗiɗi baggi tan naworta ak jëf ji nga defoon ci kaw kañum e golle muɗum ɗe golluno loolu moo lay fekk si bammel o ko ɗum tan tawituma yanade maɗa nañ bàyyi suñu xel bu baax ci ci yéen ngartir hakkillaaji men ko moƴƴi samba o yomo wima samba man li ma la waxoon sama bureau laa lay waxaat fii ko winoma bureau makko ko ɗum haalantumaa do li ngay def oy ko mbatta ko ngir yàlla sabi allah continue ci yaa jokkuɗen golle nit ñi buñ la ñaanalul oy so yimɓe ɓe ci yàlla ñaanam moo ëpp doole di ñaan o wi duwawu allah o ɓuri mawnude duwawu yimɓe ɓe boy def oy saɗa waɗa defal ngir yàlla oy waɗir sabi allah moom mooy atte mooy joxe oy ko allah ñaawata ko allah rokkata mais tant que yaa ngi sonn mu jëm ci nit ñi kono sala tampana yimɓe ɓe toujours yàlla mi ngi lay jàppale mu yomb ci oy saa fu allah ne newnan ma ko dañata ko ne ɓeydoo en tout cas ñun oy sabu ɗum enen tant que ñi ci arrondissement bi oy haadaɓe ɗo dinen e e taxaw jàppale leen toujours oy maɓe ndaro ɓe mballa on parce que loolu mooy suñu mission sabu ɗum ko ɗum woni golle maɓɓe e dinaa wax ni lii idolaye ma wi dum do kadi onon huda laynaɓe lenen ak lenen ak lenen ak lenen ngi ñëw o wi goɗɗum e goɗɗum ma ar sama conseil mi ngi joy legi école o wi joni joni conseil on o ne no affaire école adduna xewil soti o wi aduna hay hunde gas finani tan gas amna dekk yu bari mosuñu woon xalaat ne dinañ am école o wi gure kewɗe miijotono ko gonta dañ école mais lo gis day ramdi ñëw rek o wi kala ko jiiɗa noon koko laddata tan kilo hondingam magasin bi daw jeg dinkugam o wi rawande sa wiyanomaɗa daña o magasin a jaɓata yan ci bir magasin bi tawi magasin o nani place nen la won o wi ko ɗo ko te yaangi toog ci bir tabax wonno hande aɗan ɗo jooɗi aɗa e ɓuuɓ li fi indi li indi fi indi fi forage bi o wi ko addi ɗum ɗo ko addi forage o mën na indi leneen ak leneen ina wawi addude goɗɗum e goɗɗum bes bu yàlla dogaleen di ngeen am école inchallah di ngeen am école o wi hoddiri fof ñande hen on dañat so weeli allah amul leneen. ala goɗɗum woni heen. li ma lay wax. oy ko wiyatma. ne jullit yëpp bokk xol. oy yo julɓe ɓerɗe ngon gootum. bokk fi ñu jëm. o wi peemen jogoɗen anniyo e gooto. ñun li ñuy sonal surtout. o wi ko tampini en noon fof fukk day gas o wi sappo gasat ñaar fukk di suul noogas ina ngubba mais kañ la am buntu o wi ngaska ka luggitta loolu moo ñu sonal o ko ɗum tampini en parce que loo def lu baax oy kala ko mbaɗɗa e moƴƴere yow ni bëri nañ taxaw ni lii baax na oy wi won darto mbiye ɗum ne moƴƴi mais am na kuy taxaw fële ci ginnaaw ni ah kii dafa def dara lu baax kono won gonɗo toon e eh o waɗani o allah bindiri noon yimɓe la ngay def lu baax def ko rek oy kono noon an ko mbatta ko moƴƴi ko en tout kamɓe banggue laamu bu ci yàlla àndee so tawi allah jaaɓi tant que ñi ci bopp arrondissement bi o haadi allah ne waɗi ɓe ɗo arrondissement e he ak bopp département kañum e département lépp lu ñu mën a def pour suñuy population kala koɓe mbawi waɗande ha yimɓe nafa ɗumen dinañ ko def oy kamɓe parce que looloo tax ñu nekk sabu ɗum ko ɗum addi ɓe ɗo te ñun ñaan nañ yàlla ñun ñëpp oy kadi kamɓe aɓe ñaago e. ni ñuy fayee ko par ko ɓe jaɓato jaɓete ya lewru ah mu lewñu oyi ɓe jiɗi ko ɗum wona ko parce que ñu tëddee suñu bureau yi liggéey ñu defuñu dara la ñuy lekk lewuñu oyi so ɓe gonɗa ɓe liggo aɓe joɓe ɓe liggaki haydara aɓe joɓe koɓe ñamata ko ko riba wonata de gis suñu biir ñoo xam dañuy liggéey ba retraité duñu am dara o yeey yeey yimɓe ne waɗi hen liggotoɓe ha tiri taw haydara dañani parce que aqla saabu ɗum ko hakke ɓe ñamata te loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax te ɗum eɗen poti wattude hen hakkillaji ya men arrondissement bi rey trop oyi arrondissement ne mawni mais ñii oyi kono ɓeeɗo man e kanko préfet war a def muy guddi muy bëccëg dinañ ko def o wi jamma e ñalam fof maɓe mbat ɗum loolu tax président de la république iñindi ñu fi oy ko ɗum président addiri ɓe ɗo donc daf ñu wax ñu sàmmalle ko askan bi o wi o wi ko yowɓe ndenanɓe ah, leydi ndi fekkeni de fekkeni de ay taalibe lañu oy tawi koɓe almuɓe kamɓe liñu suñ sëriñ sant dañ ko war a dégg o ko seernaɓe ko ko ɗum ɓe mbaɗata maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam merci